قد النبي المنتخى زاد إليه بيتي لا إنا سواه بالإله مر النبي المنتخى زاد إليه بيتي لا إنا سواه بالإله حب النبي للإله سولا زاد إلى المدينة في موي قبلتين قبلتين سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها بوب نيغا خامتاني دا نوي ود دنجول وخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام واو يو گموني با باري سوي جولي فيتو نين يالا نيكو قل لله المشرق والمغرب يالا موغي است موغي ويست ابري تلفا le وجهك شطر wajhaka shatr كون في مو دونون قبلة بو njëkk ba. xadim ngi nii. fii la woon fii lañ doon jublu. ci benn julli ji li ci gën a yéeme mooy benn nga fété ci ñaari fété te yàqul sa julli. ndax ñaar rak ndax boba ndigalam fi la ko joxoon ndigal. xam nga julli ndigal la. ndigal li fi la won fi la won ndigal bi mu amé ñaar rak yàlla ni ko fa walli wajhaka shatral masjidil haram ci le tourner féete fii boobu nag baytul maqdis lañ doon. boobu baytul maqdis lañ doon féete mooy Jérusalem. Jérusalem waaw baytul maqdis léegi nag. bokk na nag. ci ñetti jàkka yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax moom. julli fa juróomi téeméer la. masjidu rasul bi nekk Médine. fi ñu ne doon junni. Kaaba ga doon fukki junni. kon daal kon daal bu baaxee bu ma la déggee mooy. jàkka ji fi la yonent bi salaay salaam doon jullee ba suñu borom wàcce ci aaya ci moom ne ko nag jublul. penku penku waaw fii la woon fii la woon te it julli ñeenti ràkka la woon kon tisbaar la wala tisbaar wala tàkkusaan ndax julli ñeenti ràkka goo xam ni julli gi yàllu la kon tisbaar ak tàkkusaan rek la mën a doon mu def fii ñaar tourné def fii ñaar. suñu borom ne ko jublu penku. mu tourné féete nii. bu njëkk bi nii la woon. baykat yi waaw fii moo doonoon xibla bu njëkk bi. Uh-huh. xibla ñaareel bi fii la. kon incha allah. ñu préparé nañu dem léegi fañ ñuy dem nag fi mu ne. waaw ñu ngi fas yéene dem nag fi ñuy woowee Uhud. nag buñ ko waxee xol yëpp fees. ndax Uhud fa la Hamza daanoo. Uhud saxaaba yu bëree bëree bari ci liggéey bi nga xamante ni la nekkoon soixante dix saxaaba tëdd daanu na fa. Uhud doon du du armeel mais fa nga xamante ba nii ña fa tëddoon rek fa tëdd mais du ay armeel yu ñu kër ya armeel déedéet place ba lañ doon xeexe daanoo fa ndax koo xamante dangaa ci xare ak ki armal ñoo yem ak adun nabiyin taxasarun ila bayti laay naasi waaye bi ila madun nabiyin taxasarun ila bayti laay